gannaaw nag ba mu gagné nag grand prix du chef de l'État soxal wàllu course fas yi nag bu édition 2019 Omar Bao junior nag gisul woon lenn lu du rek dajale acteurs yi nga xam ne nag ñooy yëngu ci wàllu sport boobule ngir rek njukkal leen. depuis sama maam 1965 ba ci sama papa on professeur Bao ba ci sama papa mosuñu ko gagné donc yàlla daf mu agsi sama loxo ma gagné ko ma koy sante yàlla.

ba tax na rek mu ngi ñaax acteurs yi ngir ñu rek gën ci dugal seen loxo. ay néew gi doole ñoo ci nekk duma la ne un un entraîneur comme par exemple 7 millions 500 yi entraîneur bi am na ci un million cinq 500 ci benn dimanche loolu doo ko jëloon salaire ñaata lay ça équivaut à combien jockey bi am na ci 1 million 125 mille donc fas industrie la waaw moo tax course kenn mënu du ko euh, taxawloo àgg na ci stade boo xamante ni day gën a jëm kanam.

te fas fas dafay raw kon nag ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm te gis nañu bu baax a baax effort yi nga xam ni ngi koy def ci biir fas joxe na engagement pour defar euh, nu ñu koy waxee hippodrome national te président Macky Sall ku ne xam na ni engagement bu mu wax dana ko def kon nag ñi ngi ci ñi ngi koy félicité bu baax a baax moom itam di ko félicité ci grand prix bi ndax grand prix bi grand prix am la tey Omar junior bi grand prix du chef de l'État nag mu ngi taxaw rek rek décret d'application la nga xam sport bi ay xam nga dafa am benn d'application le président de la République signé son excellence Macky Sall boo les recettes brutes de la loterie nationale sénégalaise 2 lors le directeur général de la lona en l'occurrence Amadou Samba appliqué gul ba mais présent signé le premier ministre compte signé ko donc décret d'application est en vigueur et en même temps il y a tam pose première pierre hippodrome national président de la République dina ko parce que moom suñu partenaire la bi mu depuis bi est présent président assemblée nationale premier ministre dañ ko daan la donc xamante nañ bu la a de wax dëgg champion bi di Omar Baou, Junior mu ngi gagné nag grand prix du chef de l'État ci weeru août bi ñu wees ca hippodrome njaw ma koddu bu Thiès